salaamaaleykum gars yi nuyu naa leen daleen ak jaamu ci Sen Sport 221 Sénégal Israël dañoo mujjee match nul un bi partout match boo xam ne ñoo ngi ki doon séentu score bu am doole ngir daal di jàll ci kawam su ko defee ñu daal di sax mën a xalaat ne war nañu mën a qualifier ci beneen match bi di ñëw waaye Sénégal nag dafa dal di dugal ñaari bal wala dal di may Israël benn bi jël benn bi ndax kat bit bi nga xam ne Israël am na ko Sénégal moo ko dugal Babacar Ndiaye moo dugal contre son voilà léegi nag Sénégal topp ci di daw ba ci quatre-vingtième minute ñuy soog a égaliser Pape Demba Diop moo dugal bit boobule Pape Demba Diop nag xam ngeen ko moom sax moo nekkoon meilleur buteur ci li nga xamante ne mooy CAN U20 bii ñu weesu moom xam na ni ñuy dugalee moo dal di dugal benn mbëkk voilà boo xamante ni mu loolu may Sénégal ñu dellu si ci jongante gi un bi bi yëpp nag Sénégal mën nañu wax ne moo ko gën a football ndax kat ñoo ëpp sax li nga xam ne mooy ay occasion dinañ leen ñëw joxe li nga xamante ne mooy statistique yi ndax li xew keroog daanaka moo doon bëgg a xew tey football match bay bëgg a dee te marqué woo bit te loolu mu nekk loo xamante ne lu war mën a jubbanti la Sénégal day football rek adversaire dugal tey ji nag dugal nañu benn bit waaye balaa ñoo dugal pour suñu bopp dañoo dugal pour adversaire bi bopp ba noppi soog a ñëw ci suñu bopp kon loolu moo xew tey ji ci jogante gu un bi partout benn poñ la Sénégal amagum ci compétition bi ci ñaari jogante yi nga xamante ni football na ko bu ñu xoolee nag li nga xamante ne mooy statistique yi nii la tëddee ñi nga xamante ne ñoo Israël ñoom ñoo ëpp possession de balle ndax ñoom am nañu 53 Sénégal 47 la dal di am waaye nag bu ñu xoolee Sénégal maanaam li nga xam ne moom la créé ci occasion xaaj bi sax Israël deful ko lu toll ci 24 ci ay tirs Sénégal am na ko Israël daldi am lu toll ci juróom-ñetti tirs képp. ñaar fukki tiir ak ñeent Sénégal am ko ba noppi bëgg am li nga xamante ni mooy problème mu dugal but loolu nekk na loo xam ne war nañ ci liggéey bu baax a baax beneen mbir bi mooy tiir yi nga xam ne cadré nañu ko Sénégal dal dinañ cadré lu toll ci 9 Israël 3 képp la ñu dal di cadré kon ñoom mën nañuy wax ne daanaka seen football bi li ci ëpp ay défendre la woon voilà ak di ay contre te match bi tolloo na foo xam ne sax yooyu mënatuñu ko woon am Sénégal mu ëpp euh, ay tiir ëpp li mu lu mu cadré 9 la cadré ma ne Israël 3 bu ñu xoolee tiir noo cadré Sénégal am amna 13 ni israël 5 képp lañu de am til contre sénégal 2 israël amu ci dara buñu xoolee corner sénégal amna ci lu 7 israël 4 képp lañu dal di am urge nak ñom israël ñoko def ben yoon waye tam li nga xamanteni moy sénégal def nako lu israël 8 lañu dal di def ci ay faute waye li carton sénégal 2 la dal am ci carton jaune israël amna ñu lu ci 3 carton jaune li gëna bax ci sénégal moko def mo ëpp lu mu créer occasion ëpp ay corner voilà ëpp ay tir ëpp malgré loolu yëpp ñu leen ko ëppale ba noppi bëgg am problème wala ñàkk match bi looloo doon xeeñ ci jogante gi mu nekk loo xam ne jafe la boo xam ne war nañu ko mën a jubbanti Sénégal nag léegi ñu xamal leen ne match bi nga xam ne moo des mu ngi mu ngi ko war a am digganteem ak ñii di waa Colombie Colombie moom xam ngeen ne moom équipe bu mag la moom match bu njëkk sax daf ko gagné. léegi nag moom euh, Colombie googu di Sénégal fu mu jaar da koy dóor su bëggee di nga maam qualifié match boobu nag ci di nga samedi bii lay doon bu 21h jotee ci la Sénégal du jeu match bu mujj ci wàllum poule bu la voilà digganteem ak Colombie bu fekkee gagné na ko su boobaa voilà mën na euh, dégg nga maam dundee yaakaar ngir qualifié ndax ñu fàttali leen premier ak deuxième bi dañuy qualifié waaye ñu tànn li nga xamante ne mooy meilleur troisième su ko defee mu dal di montré li nga xamante ne mooy équipe yi dal di euh, joué ci li nga xamante ne mooy huitième de finale yooyu le gannaaw loolu nag dañu ñëw ci match bi nga xamante ne ñëw di Nigéria am nañu ko Nigéria moom jamono bi mooy sagal Afrique foofu la ci coupe du monde boobu ndax moom ñaari match yu mu joué ñaari victoire la ci dal di am tey jii rek dafa dal di jàpp Italie dal di koy duma ñaari bal ci dara ñoom waa Nigéria jamono bi sax ñoom qualifié nañ ci huitième de finale ñoom moom seen yoon leer na fi ne ni match bi nga xam ne dese nañu ko gañe ko ñàkk ko yëpp teewu leen a qualifié voilà ñaari match yi ñu joué dañu ko gañe moo taxit fi mu ne ni ñoom seen xel dal na ndax qualifié nañu ba noppi voilà su ko defee nag ñuy xaar seen mbokk yi Eh, ku ci mel ni Gambie bi nga xamante ne amoon na victoire am bu njëkk te moom ñu koy xaar suba ngir mu war ñëw confirmer moom bu amee ndam foofule voilà su boobaa aw yoonam dafay leer waaye Sénégal moom comme ni ñu ko waxee moom aw yoonam des na ci samedi bi daal dinañ ci xam voilà ëllëgam maanaam victoire képp nag la xaar ci moom du leneen. gannaaw loolu wax ci li nga mooy basket ki nga xamante ni nag euh, mooy AS Douane AS Douane moom tey jii dafa di qualifié ci final voilà final li nga xamante ni moom la wax. baal baal nag boo ko déggee mooy basketball Africa League loolu nag boo ko daanaka bu ñu ko doon xayma ci football wala ñu ko doon misaal ci football bokk mooy Ligue des champions rek maanaam Ligue des champions gis nga Champions League ci wàllum basket mooy baal bi nga xamante ne moom la dégg am maam ñii di AS Douanes di football ñoom ñoo fa représenté Sénégal kon ñoom nag dal danañuy góorlu ba ci final ba kon bi mooy njëlbeen bi yoon Sénégal am équipe boo xamante ne dafa yegg ci finaalu li nga xamante ni mooy baal te mooy basketball Africa League bi mooy njëlbeen bi yoon Sénégal am équipe bu yegg ci final ba yaakaar naa képp ko xam ne seetaan nga match bi tey am nga ci mbégte ndax kat ñii di waa douane xarañteef dëgg la ñuy wan ñii di waa Angola yi nga xamante ni voilà ñoom dañoo mën a euh, basket muy euh, dégg nga maam Petro Luanda loolu la équipe boobu tudd ba Angolais yi xam ngeen ne ñoom fii ci Afrique moom amul ku leen fi dàq basket waaye ñii di AS Douane def nañ leen tey 92 ci la ñu leen dal di door ko ñoom taxaw nañu ci li nga xamante ni muy final boobulee